Sénégal 4 TV yow yakum. pour ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. budé gan nga ci kër gi nak bëssal bouton abonnement bi te bul faté activé wàlle cloche de notification bi dé ngir baña a tardé benn ci ay vidéo yi ni mais mu am lo xamni ni daanaka dañ ko takalé ak sét man léeg-léeg sax su déglu yenn rajo yi daanaka ñaari baat ñatt yu ne. sa sarax nangam la. bu ñu yëngalee yëngalaat yow sa sarax nangam la. lan mo takalé sarax ak sét hmm, waaw sarax dafa am sarax dafa nek lu am doolé sarax dafa nekk loo xam ne doomu aadama waru koo sàgganee parce que nit koo gis dafa am lu mu dëgmal mbir lu mu bëgg ak lu mu bañ léegi loolu mu bëgg dafa am lu dox diggante ak moom li tax ma la koy misaal rek nit ki fi nga jëm doo jékki-jékki nekk na fa deret yegg fa faaw am distance boo dox léegi li dox sa diggante ak loolu ngay dox loolu moo tax ñaan mbir moo gis dafa am saraxam mbir moo gis dafa am saraxam ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay xat-xat mhm. dafa am sarax yoo xam ne da nga a génnee def si ay ñaan ala ala kulli xaal loolu day jeex mhm. dafa am ñoo xam ne maanaam euh, seen sarax dafa aaju maanaam wàllu lekk ñii seen sarax dafa aaju wàllu xam ne dañ koy naan mhm. lii loo xam ne seen sarax dafa waaj aaju loo xam ne day génn te dereetu bàyyi mu wala loo xam ne ala kulli xaal mu nekk ay melo looloo tax maanaam sarax am doole nit koo gis dafa am saraxam mhm. waaye nag euh, li surtout li gën a jafe xam nit ki xam biddéewam xam rawaxaanam war a xam kii ban sarax lay génnee loolu tamit dafa nekk loo xam ne mhm. da jara bàyyi xel la parce que mën nga jaaxale tey génnee sarax boo xam ne mhm. du sa rawaxaan dalay yokk tëj loolu tamit dañ ko war a xàmmee lu nit lu ñu la wax rek nga saraxe ko da war a xam lan mooy sa biddéew da war a xam nan mooy sa rawaxaan da nga war a xam yan bis mooy xam ne si lay sa biddéew si lay fenk loolu dafa am loo xam ne yan weer mooy sa vidéo si la war a fenk. Mm-hmm. dafa am ñoo xam ne am seen yan jëmuwaay moom nga war a jëm. Mm-hmm. am na xam ne buñ jegee ndox mënuñu am dara waaw parce que seen ravaan à fois seen euh, seen ravaan à chaque day nekk. Mm-hmm. seen euh, day nekk te ndox bu mu fekk da koy fay. léegi yow boo jegee boo liggéey bërëb boo xam ne ndox la. wala ngay liggéey fa am ndox à chaque fois seen mbir loo am boo ko financé tamit du dem. du loolu dañ ko war a xàmmee loolu lu am solo la te borom damay gis. Euh, ñu bëri duñ ko leeral loolu dañ ko war a leeral loolu dafa am solo waaw am ñoo xam ne maanaam seen rawxaan bëggul deret ngay liggéey ci loo xam ne wàllu deret la waaw dafa am boo mënul li boo mënul ñàkk boo mënoo see ñàkk liggéey mhm. dafa am ay doigt yoo war a def ay ñaan yoo si war a def am yoo ci war a tàmbale incha allah rabbi yàlla da lay dàqal cat yooyu yëpp nga tàmbale ko si jàmm loolu dafa am solo. effectivement incha effectivement mm-hmm. euh, macha allah ci leeral yu am solo yi. Euh, bu njëkk ba dañu gisoon sunu maam yi. Mm-hmm. seeni sarax daa yomboon. Mm-hmm. mbiskit soow. gura ay kayiti tabax. yooyu lañ daan yooyu lañ daan faral di génne sarax. waaye léegi sëriñ si dañoo añ baar bi ba bu kawee. <laughs> ay sarax yi million. sarax yi cinq cent mille. Euh, lu seeral sarax yi. li seeral sarax dafa am loo xam ne. bu njëkk ba nit te doon bëgg a yitte bëgg ay yitte. mu ñëw ci mag mu ne ko bàyyi yitte yëpp jàpp ci benn mu bàyyi yëpp jàpp ci benn boobu sax xam day mën a nekk sax mën a nekk juróom-ñaari guro wala sax xam ne ci la suukar day yomb mais léegi da ngay yow da ngay nekk euh, kenn koo xam ne dangay ngay liggéey. Mm-hmm. Ah, nga yor famille léegi liy wékk sa ginnaaw di bëri ay millions nit nga leen di yor. Mm-hmm. Ah, nga bëgg ay projet kooku mbir mu ne ak la muy xëccal. léegi loolu dañ ko war a xàmmee moo tax bu nit buñ la waxee sa sarax te mu te nit ki gis la si seet xam ne lii mooy sarax da nga ko war a génne war a ko sàgganee mais yitte yi luñ bëri ak projet yu gën yi loo ci loo ciy xëcc lu ne ak li muy laaj am ñoo xam ne dañuy am dañuy dañuy jàng nga neen luy say te mu ne bu ma amee bac rek dem police am ñoom dañ naan damaa bëgg licence dem master dem dem dem kooku li muy laaj ci ci ci ci ci matériel waaja dafa bëri kooku bëgg te ki nga xam ne dafa bëgg am bafem rek dem bac léegi boo gisoon bu njëkk ba sarax yomb eh, dafa am eh, bu njëkk ba maanaam nit da doon benn mbir maanaam day ba bëgg benn mbir boo xam ne eh, soriwul moo tax sarax bi ñu koy génneel du sori waaye léegi comme que nit ki boo nekkee fenn di liggéey am foo toll maanaam yi lay yi lay yi lay chargé bëri. Mm-hmm. ñi nekk sa ginnaaw bi yàq ñi nekk sa ginnaaw bëgg a jàpp sa tànk da ngay diis. Mm-hmm. moo tax sarax yi ngay génnee mooy waral buñ ko xoolee. muy léeg-léeg muy xaw a bëri doole loolu moo loolu moo ko waral loolu tax léeg-léeg sarax yi di di di di bëri doole. Mhm. bay ba dina jaaxal loolu rek la moo tax euh, léeg-léeg euh, mu ngay jaaxle ci yenn sarax yi. effectivement effectivement euh, léegi nak li nga xamante ni euh, question la bo xam da fay daal di ñëwaat lu bare bare bare mhm. léegi-léegi sunu plateforme yi ni mhm. liggéeyé mhm. moy ban galankor la la la ki nga xam dem na ci kat par exemple man tay ma am aaju dem ci seetkat mu ne ma war ngaa génne. saraxub xar. Ah, fekk xëy na doole gi àggul ci ma génne saraxu xar. ñàkk génne boobu ma koy génne ndax da fay am galankor bu muy def ci man. waaw loolu nag lu am solo lu mot a leeral la. Mhm. parce que dafa am si euh, ñoo xam ne. loolu lépp day delluwaat ci wàllu set gi. Uh-huh. Mm, day seet day delluwaat tamit si wàllu biddéew bi ak ravaan bi. parce que am ñoo xam ne maanaam li ñuy li ñuy liggéey seet bi ñuy seetee. Mhm. wala jinne bi ñu yor mu leen di wax. Mhm. bu ñu ko seetalee ba bañ ma yor sama jinne mu may seetal. ma bu ma soxla dama koy laaj yeneen mbir yu jafe dama koy laaj ma woo ko ba mu ne ma ba ma sonal ko ci mu xoolal la. sàgg nañ mbir yi. ala kulli haalin man mën na ma bañ def dara parce que xamante nañ mais mën na mën na ko yóbbu mu merti wala mun na ko yóbbu ma yàq ko itam ba mu ba mu ba mu indi la gàllankoor wala ba mu gën a tëj. Hmm. moo tax euh, euh, même bu fekkee ne tamit loolu da lay ëpp doole. Hmm. war nga war war nga ko wax ban sarax mooy gën a oyof boo xam ne ba ma ko defee. Hmm. dinaa mën a ubbeeku wala tamit ba ma ko defee dinaa mën a jot seen mbir yi ba mën a génnee loolu parce que loolu day dal nit. waaw loolu tamit day loolu am solo la day dal effectivement macha allah ci leeral yu am solo yu mbokk yi nga xamante ni yéen a ñuy bàyyi xel ci émission bi ngeen tànnal seen bopp ëttu xam-xam. Mhm. ñu fàttaliwaat leen rek ni leen Cheikh euh, Moussa Ka mhm. la ñu daal di dalal ci émission bi mi fii nag ci diwaanu cité mixta mhm. waaye itam léeg-léeg mu nekk fële ci diwaanu Malika. ak lu ci mënti xew rek balaa ngay déplacé wu di ñëw di ko seet si fexeel ba jokkoo ak moom ci numéro boobu nga xamante ni moom moo daal di affiché wu ci bas écran bi. sang bi euh, xam naa ne nag su ma ñëwee ba fii euh, te laajuma a question bi ñu baree baree bari mbokki internet yi dinañ ma mere. Mhm. Euh, muy lu jëm ci wàllu. Mhm. am soxna. ak li nga xam ne moo di am borom kër. Mhm. dañuy gis léeg-léeg borom xam-xam yi ni ñu bëree ci réew mi. Euh, lu ci bëree bëri koo dem mu ne la man man naa ñaan ci wàllu nit ñaanal nit mu am soxna wala ñaanal nit mu am borom kër. ba noppi ñuy wax ne célibataire yi tey la gën a bëri ci réew mi. ñaan yi ñoo nanguwul wala ñi niy naan ñaanal ñoo naqaree ñaanal. waaw léegi nag dafa am dafa am sol nga laaj dafa am loo xam ne. dafa mat Euh, parce que euh, maanaam euh, nit ñi bu njëkk ba bu njëkk ba nit da doon bëgg da doon dugg ci mbir xaar fa mais li gën a bëri léegi dañuy ñëw ci yow maanaam bëgg soxna wala bëgg dara ba pare bëgg bëgg soxna. Mhm. wala bëgg jëkkër ñii dañuy bëgg jabar ñii tamit bëgg bëgg jëkkër mais maanaam dañuy dañuy dañuy bëgg dugg ci sëy ba pare da ci calculaale loolu baaxul. Mhm. ba pare benn ba pare tamit am na am na nit ñoo xam ne. Euh, boo nekk ñoom da war a xool da war a xool ñii est-ce que seen rawaay ànd la. waaw ah mais cheikh bi nag man su ma nekkee ak sama coro ñaari at wala ñetti at mhm. ñu bëggante miinante mhm. tey ma ñëw ci sëriñ bi mun a ma kii ma bàyyi ko ndax seen raw am àndul pour ma mhm. bàyyi ko day jafe de waaw dana jafe waaye nag loolu li mu la wax noonu lu jar ju jot a sàmm la parce que xam nga tax nit ki ñaari mu mën a am nit ki bu nekkee yow yow yow jëkkër ji boo nekkee boo nekkee ndox sa jabar nekk safara à chaque fois boo ko takkee kenn seen ñaar dana tëju moom dana amee feebar à chaque fois di am problème wala ñoo feebar am problème am na ñaari yoo xam ne du dara seetlu la. Hmm. ñaari jëkkër ak jabar yoo xam ne ñoo bëggante am problème xam nga koy waral. Hmm. li koy waral mooy jëkkër ji suuf la jabar ji ngelaw la. gis nga balaa moo taw ngelaw loolu bu ñëwee ni muy def suuf. da koy rëdd jël mbuusi yóbbu lépp. mais bu demaat na mu def tekk loolu hmm. mooy. ñoo xam ne bëggante nañ. Mm-hmm. seen xol yi bëggante nañ waaye seen xol yi maanaam seen seen biddew yi ànduñu dañuy am problème sax mais bu ñu xam da ngay dem ba da nga naan ñii dañoo ñàkk fay rek waaye fekk doo xam dafa am lu nekk loolu borom xam rek moo ko mën a gis wax la nekk ci biir moo tax borom xam-xam xam dëgg buñ ci wootee ci tey mm-hmm. moo tax. bu mm-hmm. ci bëgg nit war nga xool suñu rawaani ànd na bu àndee. ngeen doo a jiital mbëggeel gi. waaye léegi li li ñuy yàq dañuy jiital mbëggeel gi. te duñ xool rawaani ànd na léegi nag lu bëgg da lay gagné moo tax ñu war si def attention bu baax a baax a baax a baax. Mm. parce que tamit bu ma takkee koo xam ne suñu rawaan dafa ànd man tamit bu ma damay tijjeeku sama lépp jëm kaw wërsëg mi di ànd muy liggéey di am place bu mu nekkoon gën a yokk loolu moo tax maanaam euh, ñu war a defaat attention bu baax a baax a baax. Mm. ci diggante euh, sëy yi. ak ci diggante labatante yi. effectivement mm. effectivement xam naa ne bii du sori du sori dara li nga xamante ni laaj naa ko léegi. Mm. muy li ñàkk mariage bi di bari bari bari bari. Mm-hmm. tas yee ko gën a bëri. Mm-hmm. ndax dafay dellusiwaat ci ñàkk seet bi wala nit ñi ñoo aaratul seen sëy. waaw léegi nag euh, ñaar yu bëggante nit balaa ngeen di euh, duggante di sëy. Mm-hmm. dafa am lu ngeen war a def looloo tax sëy ñu koy xutba parce que xutba boobu mooy euh, nekk loo xam ne mooy fond sëy bi. waaw loolu dafa am. Hmm. boo gisee euh, nit buñ koy ñu koy bu ñuy mayee seede yooyu ñuy woo. Hmm. ñeenti seede yooyu ñuy woo loolu moo lay firndeel ne dangaa war a nit dafa war a wut ci euh, bu bëgganteeg nit dafa cee war a wut ay ñàkk. parce que da nga da nga ànd ak nit. Hmm. ngeen bëggante mu takk la avancé loolu ay mbiram neex. yàlla moo bind nit ñi am ñoo xam ne dañuy dañuy nangu li yàlla dogal. ñu ñaanal la nga jëm kanam mais am na ñoo xam ne. dañ ciy dugg bëgg la bëgg ko tey yàq-yàq yoo xam ne maara day si mm-hmm. man mii di wax am naa ci koo xam ne dafa am ku mu ku mu bëggante loon mm-hmm. kooku amoon beneen jabar ñu tàggoo waaye bi mu bi mu takkee ki keneen ki mm-hmm. dañoo avancé nekk si jàmm nekk si lépp keneen bëgg ñëwaat léegi nag loolu am problème waaye bi mu ñëwee ba yàlla dogal ñu aar sëy bi def ci lépp ñaanal ko booba léegi mu ngi am jàmm mu ngi am tew tawféex moo tax sëy euh, dañ ko war a ñàkk sëy yi dañ ko war a aar nga xam ne doom bi judd day barkeel. Mhm. dara lu mën a lu ñëw si diggante bi maanaam bu ci bu ci naree wax wala mu nar ci yàqu euh, kooku euh, suñu borom da koy toroxal. effectivement loolu lu am solo la ci diggante ñaar yoo xam ne dañuy sëy. Mhm. effectivement daanaka su ma xasee ba dugg ci biir néegu sëy du ma gaaw a bëgg a génn. Mhm. ndax ñaari jàmbata ngi nii yoo xamante ne nii ñemewuñoo tëj émission bi naam lu ñu dese ci temps bëriwul. waaye faaw ñu boole leen ñambaas ko ci. mooy lu ëpp ci sëy yi li muy tas dañuy gis ni mhm. jàmbat bi bu ñu creuser ba ci biir mhm. soit dafay nekk que nit góor yi mhm. dañu xaw a kàttan léegi jigéen ñi di wax ni dootuñu yëgati sëy ci biir néegu sëy ndax ñaar yooyu ñooy ànd waa ñaar yooyu tamit euh, yu moo tax leeral la parce que euh, nit bu ngeen bu ngeen di ànd euh, surtout góor ñi léegi dañoo war a defaat taxaw seetlu bu baax a baax a baax parce que góor Euh, dafa am yoo xam ne da ko war a mottali waaw maam nit kii boo nekk ak sa soxna mhm. euh, da nga war a xam ni mu bëgg nga ko fay yegg mhm. waaw waaw parce que alxuraan da ko wax alxuraan dafa wax ci maanaam nit koo xam ne da ngay da ngay da ngay da ngay nekk ak sa soxna mhm. euh, dee ko defal li mu gën a bëgg dee ko yegg foo xam ne foofu la gën a bëgg léegi nag maanaam li waral néew doole yu baax a baax a baax léeg-léeg sax mën nga takk soxna seen rawaxaan yi mën a bañ a ànd ak yooyu maanaam li lay jàpp day dem ba lu koy néewal doole am na loolu tamit jigéen lay dal boo amee boo xamee rab boo xam ne dafa bëri doole mm-hmm. à chaque fois da jàpp kooku tamit dana téye sa borom kër ba nga xam ne euh, li muy mën ci yow du yow mën nga ne sama borom moom sama borom kër dana xam ne moom am na kattan mm-hmm. moom mënal na la waaye yow da nga jàpp ne amul loolu tamit dana posé ay problème yu bëree bëri bëri bëri mm-hmm. moo tax li ma la waxoon bu njëkk wala gis nga nit mu ànd ak soxnaam ba seen biddéew wallaahi dooleem day gën a euh, bëri lu baax a baax a baax te euh, loo xam dafa wàññeeku doole góor yi tamit léegi dafa wàññeeku. Mhm. parce que maanaam liggéey bi nim nim ni mu yokkee. Mhm. ak ci tamit yi dox seen diggante. Mhm. waaye tamit euh, ma leen di wax ma leen di baax rek ba tey. ñu siy jëbinoo ñu ñuy jëfandikoo wala bi suuf fii kafim saa sa mi at a séddale was daaru di saa loolu noonu képp ku koy jëfandikoo sa biir néegu sëy moo xam góor la moo xam jigéen la sa sa sa sa sa sax na dana bëgg dana bëgg ba ba dana la wax wax joo xam ne mosoo ko dégg ci moom lu ñuy lu lu ñuy sëñ bi foofu faaw nga leeral ko lu ñuy lu ñuy wax la wala lu ñuy bind la di ko naan wala lu ñuy bind di ko sax ko lii dinañ ko wax suñuy ànd ak soxna yi lii dinañ ko bind di ko yeggee fenn suñu awra yi. Mm-hmm. yi dañ ko bind ngeen jégal ma joxe yi dañ ko bind. Mm-hmm. di ko naan waaw parce que nit loo xam ne dafa bëgg mu jëliñ ko yaramam. Mm-hmm. Euh, da naan wala mu sangoo ko. loolu junj la si li ma doon wax. Euh, aay nga xam ne. dafa am dafa am dafa am secret. xam ne moom nga koy liggéey lépp loo si bëgg jot. nga jot ko si ba nga xam ne boo nekkee ak sa borom boo nekkee ak sa soxna. dana bëgg lool. dana bëgg loolu ba yegg ak yow si yenn kàddu yi dana bëgg dana bëgg ba ñu nekkal ci ëtt këram. ñoom tamit dañ xam ne bëgg lu am solo la. waaye takk soxna mënuloo ko dara wala bëggul doo ko yegg fi mu bëgg nga yegg ko dafa metti loolu tamit dañ ko war a dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax solo la effectivement macha allah ci yéen ñi doon bàyyi xel ci émission bi ngeen seen bopp mhm. di ëttu xam-xam mhm. ñu fàttaliwaat leen ni Cheikh Cheikh Moussa Ka mhm. la ñu daal di dalaloon ñu fekk si woon ko nag fii ci diwaanu cité mixta waaye dala fàttali ni léeg-léeg itam dafay nekk fële ci diwaanu Malika lu ci mënti xew rek itte wala aajo boo xam ne am nga ko ci lu ñu fi waxtaane ay numéro moo nekk noonu di affiché wu ci baa écran bi loo ci xam nga waxtaan ci ak moom incha allahu bi la mu ca mën mu def la mënul mu bàyyi ak suñu borom bi nga xam ne tëlewul dara di leen jox mbokki di daje incha allahu bi ay fan yu néew ndax daañu fi dellusiwaat àggal si waat waxtaan bi ak moom mm-hmm. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu